toujours dans votre acte du jour de ce 3 octobre 2024 dama bëgg ñu seetaani benn extrait de vidéo boo xamante Ben opposant moo ko fi waxoon balaa muy accéder fii nga xamante ni maanaam au pouvoir nous déglu ñu vidéo bi dellu soit dossier yu concerné Ousmane Sonko li ci magistrat def ba Ben ji benn du ci yoon te ñi def dinañu rendre compte ma commencé ko ci Omar Maham Diallo moo ko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 kon ñoko deggando muy ay kàddu yo xamanteni ben opposant moo ko fi waxoon yëkëti ko jagleel ko ki nga xamanteni moy magistrat bi di Omar Maham Diallo dem na ba traité ko de lâche nee lepp lu ñu yëkëti def ko ci dossier dara du ci dëgg ñoom ñëpp danañu rendre compte est-ce que tay l'histoire n'a pas donné raison est-ce que gaa ñi ñu di rendre compte jëmele ko ci li en tout cas ay kàddu yu mu yëkëti woon dal daal ko ci ki nga xamanteni dafa bokkon ci institution du Sénégal est-ce que jamono ji Macky Sall yoni won na pour ñu japp ko est-ce que convoqué won nañ ko ci dik est-ce que convoqué won nañ ko ci sécurité pour que mu indi ay firnde jëmale ko ci li nga xamante ne Omar Maham Diallo c'est un lâche est-ce que yon tegoon na loxo est-ce que am na procureur bu autosaisiroon kon yaakaar naa ni tey li ñu gis fii ci ay kaddu nit yëkkati ko muy Bougane Gueye di Kader di ki nga xamante ni mooy Cheikh Yérim Seck di ki nga xamante ni commissaire Keita di Ahmed Suzanne Camara ba tey ji méngoowul ak kaddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko ndaxte lii moo gënoon doyewaar lii moo gënoon jéggi doyo te ñu ko bàyyi woon donc je crois que ñi doon naan Macky Sall dictateur la je crois que su doon vrai dictateur la donc kaddu yi du won romb ndax te Macky Sall ci bopam jël na wala ci nak yi amul luñ ko yakul fi amul saga buñ ko sagul amul traité luñ ko traité wul traité nañ ko de fenkat traité nañ ko lañ ko war ray traité nañ ko de sàcc traité nañ ko mo lek xaalisu Sénégal lépp lo xamante dal ñu ngi koy traité nit lu ci lu bon traité nañ ko ko te teewut ben yoon musul gestu wala déglu len musul auto saisir wu yoni procureur wala justice ñu daal leen jàpp donc je crois que tay suñ tollee ci ben phénomène ki nga xamanteni mo doon wax li dembu tay ci régime am ñi ci jàpp ay nit yo xamanteni dañ joxe sen commentaire ak sen xalaat Sénégal franchement parler sénégalais de dinañu poser wu question ban réw lañu ñu nekk ak ban moment lañu ñu nekk ak ban at lañu ñu nekk est ce que ñu ci li nga xamante manam moy mooy jamba en tout cas moy ay propos yo xamante dal daal teniroon nañ ko fi et ce sont des propos yo xamante tay suñ ko mengalé li Bougane wax ak li Kader wax ak li Cheikh Yérim Seck wax yaakaar naa ni tay ñoñu waruñu fanaan fi nga xamante manam moy mooy fañ nekk dañu wara ñibi ñibbi war seen kër doxi sen soxlo continuer sen ay activité